bu ñu amee aussi ay tolof tolof parce que ñun ñoo koy revue de presse quand même. waaw mais xam nga Sénégal moom amatul presse groupe de pression moo fi am. Mm-hmm. parce que tey jii ku nekk da ngay ubbi sa groupe pour mettre la pression sur l'État. bu nekkee da nga euh, jàpp ni yow da nga war a nekk ci kujje gi da ngay mettre la pression ci l'état bi di wane li nga xamante ni moom mooy euh, ay faayam ak yooyu noonu bu nekkee da nga far ak état bi da koy jàppale di ko defal propagande ñaari mbir yooyu kese moo fi am mais presse moo am fi groupe de pression moo fi am. Mm-hmm. beneen bi li nga wax noonu effectivement euh, malheureusement nag am na ay journalistes yi def seen liggéey ah, ñoo xamante ne vraiment kenn du leen reproché dara mm-hmm. mais dañ koy wax dafa am ci presse bi. Mhm. am na ay articles de complaisance. voilà articles yoo xamante ne dañ koy bind parce que ku ko parfois sax bu ñu defee signature bi ñu def si Pape Makhtar mhm. yow ko xam Pape Makhtar xam ne kii niveau am yeggul fii. Mhm. mais dañ ko koy defal ni nga ko waxee aussi ci revue de presse yi noonu la existé da ngay gis koo xamante ne off la nekk ñu revue de presse ko alors que revue de presse bi à la base c' était juste wax li nga xamante fexe ba solidariser wu te dem ñi ngi wax waxu mhm. indépendance mhm. tey jii ñu am taxawaay bi nga xamante ni dañu sax violer li nga xamante mooy présomption d'innocence mhm. parce que man aussi bu ma doon def yenn émission yi nga ñëw euh, ni dangay ngay def euh, xaw ma lu mu tudd émission yooyu ni dangay ngay raconter benn histoire boo xamante ne dala metti parce que da nga bëgg sensibiliser Sénégalais mais boo ma ñëwee génneel ma këyit boo xamante ni décharge bi dañ si binn prêt Mhm. si laa lay delloowaat ni la soxna lii mënuma ci def dara mhm. mënuma si def émission parce que li nga xamante ni yow yaa ko nangu déchargé mhm. xaalis bi prêt la demal nga laaj ko xaalis bi mu jox la ko mais doo ñëw fii tey jii di jël ay accusation di ko teg ci kawam te moom newu fit loolu du ma ko accepté euh, yi ñoom ñooy dem ba nit ñi dootuñu defati seen liggéey ku nekk dafay bëgg wane au combien il est fidèle à son bu nekkee ci benn côté bi da koy jéem a jàppale wane au combien moom mooy euh, chien de garde am entre lu mu war a def ci salle bu la koy defal mais malheureusement loolu du am euh, benn kii euh, benn mbir bu rafet wala benn mbir bu baax bu ñuy apporter li moo tax après ñoom ñooy wëlbatikuwaat di naan presse bi respecté wuñu leen. Mm-hmm. mais est-ce que ñoom respecté nañ respecté wante nañ seen biir ak mm-hmm. nawlente nañ seen biir. Mm-hmm. ñu génn si mbirum Pape Ndiaye wax beneen mbir boo xam ne euh, si suñu hors de nos frontières la mais mu nekk diggante Palestine ak Israël ñu gis nekk fan yi ñu wees yëpp de tirs de roquettes ñu ngi jógee foofu le si Israël di dem si Palestine monde arabe wala sax ne moom la ñuy wooyee ne ñoo nekk les grands nga xam ne ñooy ay droits de l'homme mais évidemment parce que xam nga tey jii euh, Israël dafa nekk benn puissance boo xamante ni dafay affirmer puissance am. Mhm. bu demee ba président sax bu bëggee falu ci États-Unis mhm. dafay dem foofu jox leen ay yenn yenn yenn yenn euh, comment dire da leen di jox ay garantie mhm. amul benn président depuis depuis depuis presque George Bush amul benn président bu ñëwul dem ba Israël ni leen bu ma faloo damay reconnaître Jérusalem président yëpp ni Jérusalem ci Israël la bokk président yëpp jot nañ ko wax euh, dof bi Trump moom moo ko mujj réaliser mais ñenn ñëpp dañ doon wax mais bu ñu demee dañuy xaw a tandee fa mais pour dire que en fait que ñoom dañuy nekk di di di di di di di di chantage ñi nga xamante ni ñoom ñooy aspirer di diriger pays léegi ñooñu buñ la amee ay yenn contrepartie ñun la par exemple boo soxlaa lii ci xaalis dañu yokk xaalis. Mhm. boo soxlaa lii ci xaalis dañu la koy jox. Mhm. donc ñooñu ëllëg bu ñuy def lenn li nga xamante ne dafa euh, euh, wute ak li nga xamante ne mooy lu yoon santaane. Mhm. ak droit de l'homme ak yooyu noonu yëpp. doo si wax dara parce que aussi dañ lay naan la main qui donne c'est la main qui dirige mais malheureusement tey bu ñu xoolee ci man Sénégal bii laay wax rek. président Macky euh, ak état du Sénégal ba tey amul position bu leer. alors que tey dañu waroon affirmer suñu position. mais bon je sais pas en tout cas peut-être dañu ragal dañu ragal représailles yi Israël mais je crois que tey vraiment. Euh, président Macky Sall xam nga ndeysaan dafa baax ne woon na fi dafay jël ay soldats yóbbu leen Yémen pour ñu jéem a aar Kaaba gi mm-hmm. de la même façon aussi waroon nañ jël li nga xamante ni moom mooy ay soldats ñu dem aari jumaa moom moo nekk fële ca Palestine dem xamante ni ñoom ñooy ay palestiniens ñiy demander lu dul taxaw julli si seen jumaa bi nga xamante ni seen territoire la bokk donc je crois que vraiment parfois da gis ni que dafa am yenn dossiers yoo xamante ni dañuy nangu jël ay position mais yenn dossiers yoo xamante ni duñ nangu jël ay position parce que dañuy ragal ay représailles te effectivement Sénégal njortu naa ah ni armement yu bëri ñuy yor auto blindé yu bëri ñuy yor ci Israël lay jógee. Mhm. am na yoo xamante fa dañ koy commandé ci dañ koy fay ak duñ ko fay loolu question la xaw ma mais vraiment daal je crois que. état du Sénégal waroon na am beneen taxawaay bu wutee taxawaay bi mu am surtout que Sénégal yaakaar naan moo mujjee doon euh, njiit ci OCI. Mhm. laata ñu koy jox kenn. Mhm. donc loolu yëpp mënuñu am ay organisation yoo xamante ni ci islam lay dox nit ñun dañuy fexe di regroupé wu ba noppi am koo xamante ni wala réew moo xamante ni ñi ngi leen di noot ñi ngi leen di teg souffrance ñi ngi leen di teg loo xamante ni lu kenn mënta accepté la au nom de la dignité et de la liberté waroon nañuy dem taxaw foofu comme ni fa taxaw woon euh, fële ca France di naan au de la euh, liberté et de la dignité humaine mais malheureusement il y a des vies à préserver ak des vies yoo xamante ni ñoom ñooy ñoom ñooy sut dayoo yenn yenn bakkan yi te loolu lay ñuru te effectivement boo xoolee fay loolu lay jox. et bon le monde musulman l'Arabie Saoudite le Maroc ainsi de suite dafa mel ni comme on a comme l'impression que kii di Erdogan moom rek moo fi nekk président pour les musulmans quand même. waaw mooy mooy li ma la wax sa à dire ñu bëri ci tey jii ci pays arabe yi dañu ragal représailles yi parce que aussi euh, Israël euh, moo nekk ginnaaw États-Unis te États-Unis euh, kii bi ngay wax Arabie Saoudite bi ngay wax noonu États-Unis moom moo yor sécurité am donc ki nga xamante ne moo yor sa sécurité sa kaaraange. kooku ku mu yaakaar mooy Israël. Mhm. ku mu teg nit mooy Israël donc kooku aussi du jël yenn engagement yi di ko def mais je crois que vraiment il faut il faut que ñu jéem a am euh, plus de courage ñu affirmer ko parce que non seulement Israël bi benn cas mais Irak aussi bañ koy attaqué mais monde musulman am dañ toogoon di seetaan. Mhm. donc je crois que vraiment bu nekkee monde musulman am na wax nañu mën a taxaw di taxaw di jàppale jullit yi nga xamante ne nekk ci ay ay souffrance au delà sax de ay jullit ak di seetaan ay réew yoo xamante ne ñu leen di bombarder wax ñuy ñuy wax ay waxu guerre mais guerre njàpp day fekk ñaari armée ñooy jàkkaarloo mm-hmm, mm-hmm. mais ay armée yoo xamante ne dañuy taxaw di song di tirer ci ay population yoo xamante ne amuñu benn arme lu dul ay xeer ak yooyu pour résister te demandé wu ñu loolu dugg seen jumaa pour julli nga leen di fekk di leen bastonné di leen dóor di leen rey jël ñoo xamante ni euh, seen ay wayjur di rey ñii ay doom di rey di tirer ci ay ambulance di tirer ci ay hôpital ci ginnaaw États-Unis parce que aussi mooy li nga xamante ne moom moo nekk ci àdduna bi mooy pusillanimité des des des dirigeants politiques mm-hmm.